may ma tuuti nopp rek ndax tey foog na ngéwél gi famille bu tollul woon fii buñ ko tuddee sax tuuru famille ba di ko lu tolloog Sorano wala Grand Théâtre am na ñoo xamante ni fi ñu tàmbale ci wax rek manam fi ci jeexale woon man fa lay li lii ban koy door a def ñu bari gëmuñu nu Birame Rose wax na ko léegi foog man ñi njëkk a bokk ci ngéewul gi famille ci laa bokk. Ngone njaay mii nekk sama xarit lu jiitu tey ni mu jëlee répertoire ñëpp noonu la jëlee sama bos waaye foog naa boo nee benn walla ñaar doone ñett te dugaluma ci. ne ma macha allah sa xalaat rafet na macha allah nit ku baax nga su ma sañoon lu may def lu nekk dama la ciy boole. sëñ Fall nag da daan wax ni gën ñëpp mënut a nekk waaye fexeel fa nga ne bu la kenn gën te fi nga ne kenn gënu la fa Ngoone Njaay yàlla na yàlla guddal sa fan te yàlla na yàlla jàmmal la ci daraja yi sëriñ Fàllu Mbàkke mi nga doyloo te yaakaar ko kon bi yàlla dogalee tey jii ñu jël loolu yëpp mu diis metti ñu yëkkati teg ko ci loxol Balla Sàmb maa ngi giñ ci sëñ Touba aw ma ku sëriñ tubaa nu ma mooma ndax sama boppay metti moo gën a wër sunu bopp ngi metti jëmm ju baax a ngi toog muy Balla Samb dara yëpp rek su ma koy wax maa ngi koy maa ngi ko tàmbali ci ngéwél gi famille yamale ko ci ngéwél gi famille kon ba tax na Bamba fay lii mu def ngoone woo ma ba ma ñëw mu ne ma damaa damaa damaa jël leetar woo woo waa ngéwél gi famille boole leen ci sama bis boobu may defal Pape Diouf kon loolu bamba dafa rëy ci ñun ndax nag fii ay gor yu neen ñoo fi ne nit ku nekk bu ñuy wax juddam daa rëy laaj ko ndax juddu ba rafet na te fii ñun ñëpp kenn ku nekk loo xool ci sa morom rek mi ngi ci sa morom ñu ñu neen la dañ ni ngéewal gi famille dama ko yàgg wax waaye ku ne bokk na ci te xaa sonke yi sax danañ ñëw waaw ngéewal gi famille lan waxoon tukulóor baa ngi fi joolaa rafetlu nan ko ma jël ko teg ko ci loxo ki nga xamante ni mooy Balla Samba ñun ñëpp ñu déggee ko noonu yow it cofoonu xeeboonu xam nga ni tey fi Ngéwél gi famille toll macha allah mënoon nga koo jox yeneen groupe te nag Bamba nag yeneen groupe sax amu fi nag fii Ngéwél gi famille fi ne. kon nag bu bis booba ñi ngi ñaan ci yàlla. yàlla nan ko yàlla na ko ñëpp fekke tatal ko. ci barke Seydina Mohamed may am contentement biram Ndiaye loolu nga ma joxoon mooy kàddu yi kon may jël lettre bi jox ki nga xamante ni mooy prési prési baa ngi nii bu la ko joxee Tikka Ndiaye nangu ko. kan kon ba tax na fi may daanelee sama kàddu mooy. waaye fi may daanelee sama kàddu mooy yàlla na yàlla defal nu jàmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal xéewal